Bienvenue sur Salam Vision. ladies and gentlemen asalaamaaleykum les gars asalaamaaleykum les chers internautes yi nga xamante ni nii yéen ñuy seetaan sur Salam Vision télé bi nga xamante ni nii jàmm gu ànd gis-gis la woote waaye jàmm goo xamante ni nii day saawan baawan ba dugg ci biir kër yi parce que jàmm ci la lépp xaj ñu ngi leen di ziar bu baax a baax ci leen jox seen wàccuwaay comme chaque jour et comme toujours c'est de big xale bi yaayam yaakaar l'homme qui n'a pas peur de voir I am the future of je suis l'avenir de tout un peuple. Quand je parle, j'ai l'air que je fais partie l'un des meilleurs de ma génération. Et je sens que c'est ça que vous sentez et ressentez là où vous êtes. Et ce n'est pas donné à n'importe qui. Quand je suis en Vision, N'oubliez pas de vous abonner, de partager, liker, comme chaque jour et comme toujours. Nous allons demain, nous allons nous voir avec vous, ci gëstu bés bi muy émission bi nga xamante ni nii depuis bi mu ñëwee ah yaakaar naa réew mi mu ngi yëngu de ndax lépp loo xamante ni nii lëndëmoon na ci xelu gaay yi rek dañ koy leeral ba mu leer parce que fii la lépp di xewee fii la mburu mi di xoyom xoyomee tey nag on va parler de trois trucs yoo xamante ni nii moom mooy nekk actualité bi nga xamante ni nii mooy dox semaine passée wala mooy dox ba tey bi ci njëkk mooy que ni la conseil national spécial bi nga xamante ni nii président de la république woote na ko Macky Sall pour wàññi dundin wi bu ñu fa jugee tamit dinañ xooli li nga xamante ni nii mooy problème bi dox ci journaliste suñu suñu naataango journaliste boobu noonu di Pape Alé Niang borom Dakar Matin muy mu nekk tey jii si loxo yoon mu am ay problème yoo xamante ni jot na fi loolu incha allah dinañ ci ñëw léegi léegi nii buñ jógee foofu tamit dañuy dem xooli li nga xamante ni nii moo xewoon démb diggante Siteu ak Papa saw moo xewoon ci diggante Siteu ak Papa saw ba Siteu yàlla def mu am dam mais bi mu tasee dañ ci gis yeneen yoo xamante ni peut-être mënoonoo ñàkk muy ay violence yoo xamante ni nii baaxul ci mim réew comme ni ma ko waxee woon keroog léegi nag dañuy dem à la régie bu ñu fa jugee ma dalal sama gan wi nga xamante ni moom lañu ñu àndal tey muy un journaliste boo xamante ni il est il est il est il spécial un journaliste boo xamante ni je l'admire parce que day wax te bay wax di ngeen xam ne kii dafa gëm boppam kon maa ngi koy cawda bu baax a baax sans plus tarder damay dem régie après ñëwaat présenté ko incha waaw maa ngi lay dalal ziar bu wér waay. ñu bu baax a baax di kontaan dal la ci Salam Vision. waaw waaw man kontaan naa ci trop vraiment waa Salam bi yàlla ca kaw ca kanam daal. amiin ñu gis ne instant bii nii Macky Sall suñ président wàññi na dundin bi xam nga samedi bii passé lan ngay wax ci loolu doon. waaw waa wàññi dund de wax dëgg yàlla euh, askan bi dañ ko yitewoo waaw parce que inflation bi day sonal borom kër yi bu fekkee nit ki sa am-am yokkuwul ba pare njëg di yokku loolu sa sa xam nga day xaw a doy waar parce que bu fekkee yow li nga am bougé wul te njëg yi mi ngi yokk inflation boobu du arrangé ménager yi quoi waaw loolu loolu kay initiative bu baax la waaw waaw xaw ma nag ba xam dañ cee jublu ci affaire politique waaw parce que politique moom am na am na ñu ne troisième bi moo tax ñu muy kii affaire yi pour yóotu troisième mandat yi waaw waaw man sax affaire troisième mandat boobu man dafa am benn analyse bu bu bu kii daal bu strict bu moo ci am parce que boo seetee article vingt sept ñaari paragraphe la dañuy premier paragraphe bi la durée di euh, nul ne peut faire plus de deux mandats consécutifs. la ñu wax mooy premier paragraphe bi. deuxième bi mu ne la durée di mandat présidentiel est de cinq ans. waaw léegi problème bi mooy euh, xam nga euh, yoon bu bu fekkee dafa juddu moom ëllëg lay xool du xool démb daal yaa ngi dégg léegi la loi ne dispose que pour l' avenir c'est que tamit Sénégal tamit ñoo ñoo tàmm ñu nax leen naxaat leen parce que boo fàttali ko Abdoulaye Wade bi mu jëlee réew mi. ci ci constitution 1963 2000 bi mu gañ Abdou Diouf dafa jékki-jékki 2003 mu wootee référendum Sénégal yi wootee loolu référendum boobu bi ñu modifié bi léegi premier mandat bi kon 2000 euh, mil xam nga dafa génn moo tax Ablaye Wade amaat sañ-sañ nekk euh, candidat en 2011. waaw te comme Macky Sall Ablaye Wade da ko yar def na ci moom juróom-ñetti at euh, lépp lu mu liggéey ci Ablaye Wade la ko commencé même liggéey li muy liggéey ne continuité la rek quoi ndax ba mu nekkee ci Ablaye Wade bon. ministère yëpp def na ko def na président assemblée nekk na directeur pénitentiaire ainsi de suite quoi léegi tamit sénégalais bi ñu demee ba 2016 bi ma gisee Pastef bi ñoom Youssou Ndour am ak yeneen element yi pour def pour voter référendum bi man dama ne référendum bi gars yi ni ñu ci sonni nii am na lu ci ne daal. allah Yes, on est de retour sur ce plateau gëstu bi gëstu bés bi jaax nañ leen bu baax a baax sur Salam Vision sans plus tarder comme ni ma leen ko junjee woon rek tey lépp dina leex tey nag émission dina tàng jër. parce que ki ma invité tàng jër la def sans plus tarder dama koy bàyyi mu nuyoog ñi nga xamante ni ñoo ñuy seetaan sur Salam Vision comme saa ñu wéyal waxtaan bi frère nuyu naa la. asalaamaaleykum Sénégal boo ko àdduna di leen jëfal di jëlaat nuyoo bi tam di leen ko delloowaat yéen ñi ñu suivre à chaque fois. tey may amaat mbégte mbégte gi may amaat mooy ci fi nga xam ne tey ji dalal nañ ma fi tey mu nekk biir salaam Vision di la jox sa wàccuwaay di la sant di la gërëm di la delloowaat nuyoo bi di la wax ne. fay naa la. noonu lay demee saa su ne di nekk un jeune boo xamante ni nii fii la dëkk ci dëkk bi te lu dul dëgg du ko wax ah moom dafa engagé ci xale <laughs> kon jeex naa ko bu baax a baax di ko jox waa ci ni ma leen ko waxee woon sànq rek ku ne xam na ne Macky woote woon na samedi bii passé muy le 5 novembre di démb tu vois woote woon na xam nga mu def mu am ay changement yu bëri yoo xam ne soppi na ko xam nga wàññi na dundin wi li nga xamante nii tey jii def na ko fi ku nekk gis na ko ku nekk gis na ni instant bi nii wàññiwaat na lu bëri te loolu noonu c'est un acte boo xam ne dañ koy saluer kilo ceeb instant bi trois cent vingt cinq lay jar kilo suukar cinq cent soixante quinze kilo mburu cent soixante xam naa ne loolu moom sama mbokku njóobeen ni tamit dinañ ci kontaan waaye tamit kilo litre huile litre huile je pense litre huile cent mille deux cent lay jar kon lool noonu yaakaar naa wàññi na ko mais frère est-ce que est que moment bii la woon pour est est-ce que nekkul woon moment yi passé parce que ñu on a vu que ni ci des bariwul tu vois trois deux ans moo ci des ñu ñëw à l'élection te depuis lors Sénégal yi noon nañ ñu ngi doon wax ñu wàññi ñu wàññi mais est-ce que moment bii la woon quoi man loolu laa bëggoon xam. Macky li ma bëgg a xam ba pare moo di li ma bëgg pour mu leer ci kanamu askanu Sénégal yi Macky Sall 2004 lañ ko faloon Sénégal. 2012. ñu ngi ci ban année. ñu ngi ci 2022. 2022. boo ko xayma ñaata at la. à à peu près douze ans je pense douze ans. ci douze ans ou dix ans. douze ans et dix ans. yaa ngi doo ko dégg Macky Sall jël engagement pour wàññi dund gi ma yaakaar naa ne sénégalais yi dofuñu parce que boo déggee ma la sénégalais yi dofuñu yaakaar naa ni ku falu 2012 2013 2014 2015. deux mille mille dix 2016 2017 2018 2019 2020 2021 ba yaa ngi ci 2022 di waaj a dugg dugg 2023 ñuy doog a dégg ne Macky Sall nee na wàññi na nangam nañ bàyyi théâtre yi quoi nañ bàyyi théâtre yi nekkee ci biir réew bi parce que yaakaar naa ne Macky Sall li mu def nii waroon na koo def ca premier mandat ba ba mu toogee parce que gars yi kaasoon nañ fi naan ay location daa seer ak Macky Sall bu demee ba toog ne. dafay wàññi dund gi wàññi location bi yaakaar naa ni troisième mandat moo tax mu koy wax mais yaakaar naa ne bu fekkee ni dafa bëgg a defal sénégalais yi sénégalais yi jàpp naa ne yeewu nañ ba pare. mais mais mais xam tey jii nii nekkul nekkul Sénégal kese a voit que bi yëpp la parce que ñëpp euh, réew mi yëpp dañu dañu nekkoon kii quoi parce que du Sénégal kese quoi kon bu bëggee jël lépp euh, xëpp ko xëpp ko ko président peut-être foofu noonu dinañ xaw a def faute parce que affaire bi nekkul Sénégal kese affaire bi fépp la. ma laaj la benn affaire Macky Sall mooy président Sénégal mais yeneen réew yi ñu wër kan lañ jël def ko premier njiit boo xamante ne tey ji bu problème amee tey moom mooy njëkk a topp ci ginnaawam ngir mu war a kan la doon. comme maanaam yenn problème yi am ci biir dëkk yi comme tey ci biir Afrique yi président yi kan mooy njiitu Afrique yi Macky Sall léegi lan moo tax yeneen dëkk yi gën koo évoluer ci wàllum dund. waaw xam nga tey jii nii bu ñu xoolee foofu peut être mën nañu mën nañu juum parce que ku nekk ak yàlla may tamit nañ waxante dëgg te te te je me suis euh, ni ñu war a jàpp ne président peut être da lu mu fi fekk la. loolu lii lu mu fi fekk la lu waroon lu fi waroon jaar la mais comme que tey jii nii dem na ba ba ba ba xelam kii mu wàññi affaire yi pour man c' est un acte boo xam ne ko war a saluer quoi. ñi ko war a sant gëm naa luñ ko sant moment bii parce que. parce que du moment bii la ko gars yi soxla woon wax day leer du moment bii la ko gars yi soxla woon xam nga ci ban moment lañ ko soxla woon ba ñu amee yaakaaroon ci moom ba ñu amee woon yaakaar ci moom fal ko ndax yaakaar naa 2012 dañu amoon yaakaar ci moom 2019 ñu demaat élection gañe woon nañ ko mais toogaan na ci nguur gi xëy na entourage yi ñoo def lu nice parce que am na foo xam ne làbbali woon nañ ko fa 2019 fekk ma Sénégal mu ngi ma fekk Guinée Bissau ñi fa jot a campagne yëpp yëkkatiwuñ seen carte votel Macky Sall kon Macky Sall toogaat na deuxième mandat troisième mandat lay xaaraat mais troisième mandat bii nii nii nii nii boo taxee ba tax Macky Sall ne. xam nga xam nga ba tey troisième mandat troisième mandat waxagu ci il n'a pas dit que ni day nekk candidature au 2024 waxagu ko ba tey kon mënuñoo mënuñoo mënuñ jàpp ne troisième mandat Macky dina ko demander. waaye ma laaj la benn wii beeg non bi nee nañ wii moo gagné léegi wii boobu léegi la moo ko waral. on sait non on sait pas encore gis nga foofu am na nañu réer léegi daal xam nga nu def dañuy xaar ba dañuy toog xaar ñu xool est-ce que Macky dina demander troisième mandat ou pas mais man je ne pense bu fekkee ñi koy conseillé wax nañ ko dëgg je ne pense pas dina ko demander. est-ce xam nga benn affaire na benn affaire bu fi lëmbee ci réew mi gars yi nee Sonko. ay këram këram dugg na fii génn fii. non xaaral ma la dafa am dafa am dafa am fu ma bëgg a ñëw. parce que dafa am loo xamante ni day leer ci bopp askan bi man mën naa laa indil preuve yoo xamante ni man mën naa génne preuve yu leer naa ñe est-ce xam nga ni Sonko mii ngay gis ni mag Sall lay liggéeyal. <laughs> déedéet déedéet loolu moom loolu moom ça ne peut pas être ak Sonko ni mu fi mel yëpp non non ah ah ah j'espère que nag yéen a yéen a dégg li wax. ci vois yéen ñi nga xamante ni nii yéen a yéen yi man ngeen a man ngeen a man ngeen a commenté man ngeen bokk ci biir émission bi ngeen commenté ngeen wax nan ngeen nan ngeen gisee seen xalaat parce que ci la bokk tamit parce que li mu wax nii rëy naa danger la wax de yow ñeme nga de waxuma danger de su ma nee la Sonko Macky Sall lay liggéeyal man am naa fu ma ko teg waaw foo ko teg fi ma ko teg ba xam ko bu ko Sénégalais laajee ma génne leen preuve indil leen nii Sonko Macky Sall lay liggéeyal saa yi ah débat bi mu ngi bëgg a parce que man je me suis toujours dit que ni Sonko sénégalais yi ñoo ko bëgg Sonko depuis loox mu ngi xeexal sénégalais yi kon boo ñëwee tey jii nii ak li fi jot a am yëpp Sonko lu xew mu ne mu ne président moo moo ko waral nga ñëw tey ne Sonko Macky Sall lay liggéey dina lën dina lëndam ci xelu sénégalais il faut nga leeral ñu tamit Sénégal kan mooy njiit Macky mooy njiit bi loolu biti la fanaan Macky Sall bu ko neexoon laa la wax Sonko wallaahi mu fanaan ci kaso bi léegi parce nit ñi lañ bëgg a li tax man la nit ñi lañ bëgg a yab fii ñaata yoon nga fi dégg yenn kaa jàpp nañ fi nit tëj ko ci lan ci téléphone bu mu for ci téléphone bu mu for ñu ne léegi sàcc na ko ñu pare foofu noonu yàgg nañ fee gis viol li gën a danger ba gën a danger est-ce que xam nga benn affaire ma delluwaat ci tuuti pour yow nga mën a comprendre tuuti fii ñaata imam nga fi dégg ñoom ñoo fi tëddee seeni doom bari léegi yow ñi nga xamante dañoo jur seen doom ba pare ëlbatiku tëddeewaat seen doom ba pare seen doom tamit amaat doom tamit mu leen doom jooju ñu am ñoo moom ak ki ko jur ñoo bokk benn baay comme que ñooñu lañu jàpp tëj leen comme que ñooñu lañ waxul waxu viol kon yaakaar naa sénégalais bu ñu def ñaata bakkan jàmbur rek ñoom ñoo fi faatu. bëri na ay xeetu sacrifice la. te ba tey amul autopsie amul amul dara man loolu ba tey daf ma jaaxal man maanaam seen famille ñu ngi toog di xaar te ba tey naada quoi loolu tamit fa war nañ ci wax ah. xam nga wax ji mooy lan. sa wax nga léegi sakk ni ay sacrifice foo teg loolu yow it. amee na ngay xamu taal bi de. est-ce que xam nga ni monument bi gars yi di woote ay affaire manifestation yooyu noonu. lu gudd loolu ngay gis noonu noonu saa ñu fa taxee di dóorante promotion yi dañuy am doole dañuy kontaan. sa information xóot na de foo jëlee lii. tooguma Sénégal kese. ay. ma senegal kese. commenté leen yéen a dégg man du wax. tooguma te li gën a garaaw ba gën a garaaw moo di Ousmane Sonko sénégalais yi lay nax. xam nga xam nga yow xam nga man man. mais yow est ce que doonoonu Sonko est ce que Macky yónni la yow. nañu waxante dëgg rek parce que yow Ousmane Sonko yaa ngi koy xalaat sànq ba tey ah. Ousmane Sonko Macky Sall lay liggéey Macky Sall xëyee bu toogee Ousmane Sonko saa yu ci Macky Sall lay jëm. wuy ma yow yow man tey su ma la tooñoon yow yow su ma la tooñoon léegi léegi léegi léegi léegi léegi bis boo ma yëbee ci yoon balaa timis sa jot ñu làkk ma jant gi su ma taxawul jegul la mais en tant que président nu foore en tant que yow li nga nommé yow ba léegi yow ba léegi yow fi nga toog fi nga toog ba léegi Ousmane Sonko lu mu bëgg a wax Macky Sall wax ko ko Macky Sall jël ko accepté ko dañuy waxtaan Karim Wade tey anamu. Karim il n'est pas encore là. ba tey mu ngi Qatar. moo xam ne foofu tamit beneen surprise bu gën a garaaw. la may waxaat foofu. Macky Sall fi ne xam lu mu bëgg. woowee Karim mu ñëw toog mu jël la ngay jébal ko ko mais sénégalais yi dafa ñu. mais mais ba yow ci yow xam nga yaa ngi wax ñaari wax parce que tu as dit que ni Macky Sall Sonko lay liggéeyal. Sonko Macky lay liggéeyal. léegi comment ça se fait mhm. ba ba euh, Macky Sall Sonko ji liggéeyal Macky Sall ba pare Macky Sall tourné di di jëli Karim pour mu ñëw nekk président. Sonko sénégalais yi ñoo ko topp mais day nax Sénégal boo ma dégloo rek mu neex Sonko fit bu mu am nii ñi ko woon ñoo ko jox xam nga mooy lan état ñoo ko may doole. gis nga manifestation yi muy taxaw di wote ni nit ñi di ci seen bopp pour dire loolu mooy dundal xeetu formation yi tax ñoom ñu war a mën a toog fi ñu toog xam nga c'est que Sénégal nit ñi ñoo war a yeewu tuuti. Ah, du mais attends je suis avec le xam naa li ma la làkk di mënoo koo comprendre. Ah, est bu koobi créole est bu koobi naada créole est bu nobay bisaawo non père so parce que li ma la làkk ni xaar parce que dafa am loo xamante ne dama bëgg ñu xut si tuuti lu ko tàmbalee Guinée Bissau Gaabu Kumpango Sintiangin Bandankiling gis nga lu ko tàmbalee dëkk yooyu noonu yëpp Macky Sall dafa am base Sonko am fa base mais seen base yëpp ñoo bokk benn teen bi ñuy rootee Macky Sall bu boo ko neexoon léegi léegi léegi léegi léegi léegi Sonko biir këram du fa yendu ba fay fanaan nañu bàyyi senegale yi ñuy topp di ndax naan ay procureur rek woon na mag Sonko ngi nii saa bu wujjee bu ñëwee day toog def nice cool kulam sañ sa ba rafet sañ sa xoolal sottee ko parfum ba mu neex tim écran yi taxaw wax lu mu bëgg waxtu wax tudd Macky léegi man man man man ba tey ba tey ba tey yow yaay wax parce que parce que li may li may li may signalé waat mooy que ni comme comme ni ma ko waxee woon sànq man ngeen commenté parce que ci biir kàddu askan wi la ñu wax képp koo xamante ni gis na ci lu mu war a wax ñëwal commenté partagé like parce que fii la ñëpp di xewee fii mooy Salam Vision jàmm ju ànd ak gis-gis la woote léegi nag dafa am loo xamante ni moo fi xew ku nekk gis na Mimi Touré temps yi passé def na ay sorties wax na def na fi lu ne wax na fi lu ne man nag comme je le euh, ku nekk gis na fi tamit que ni. Pape Alé Niang jamono ji nii yoon teg na ko loxo parce que dafa dafa il a fait des révéla des révélations explosives divulguées ces derniers jours sur l' affaire de Ousmane Sonko Adji Sarr. léegi loolu moo loolu loo mais mais non non non. da ngay teg sa baaraam ma joxaat ne beneen boo xamutoon. Mimi xam la moo tax mu démissionné. léegi essayé nag léegi dafa jëlaat tànkam léegi ngir ëlbateeku léegi pour tourner waat dama ci base bi nga xamante ni mooy ci base Ousmane Sonko ngir fas yéene ànd ak Ousmane Sonko di liggéey léegi la moo tax léegi Ousmane Sonko léegi pare pour accepter loolu parce que sénégalais yi la ñu yàpp ñoom ñoo yor tunnel yi xam nga tunnel yi xam nga tunnel yi tunnel bi ñoom ñoo ci ne ñoom ñoo ci nekk état kenn du ko jaay doole état lu état su bëggoon léegi léegi léegi léegi Sénégal doon boom léegi léegi léegi da koy doon Ousmane Sonko. Ousmane Sonko ba muy ñetti yoon Ousmane Sonko laa bëgg li muy def na ko arrêté. parce que Macky Sall yi liggéeyal. léegi léegi léegi comme li ma la ko wax rek comme comme comme Pape ku ne xamante ne nii moom moom moom euh, Dakar Matin. tu ku ne xam na ne moom moom mooy borom Dakar Matin yoon teg na ko yoon jamono ji parce que ni avec avec les informations qu'on a on a vu que il a fait des révélations explosives divulguées ces derniers jours sur l'affaire de Ousmane Sonko Adji sax maanaam si gàttal. Hmm? dafa génne ay information yoo xam ne waru ko woon génne looloo tax yoon jaabu ko est-ce que loolu yoon la. mais journaliste lan mooy rôle am. mais y yoo xam ne man pour man waruñ ko génne. mais sénégalais bu ñu demee ba téye ay information naan lii warut a génn yaakaar naa ne foofu dëgg amu fa. yow ça veut c'est normal. bu doonoon ma ma génne lu gën a pire loolu. Ah, parce que maa ngi yeneen dossiers yoo xam ñoo gën a pire li Pape Alé Niang génne. léegi looy xaar bi génne ok ok léegi nag loolu mooy question bi xam la moo tax boobu ba léegi loolu mënu ma ko génnee parce que dafa am ci loo xamante ni ñun dañ cee nekk di ci tënk parce que dafa am loo xamante ni dafa war a feeñ te loolu war a feeñ nag lii moo ko war a daaneel léegi nag mun ñoo tëb tëb génnee loolu te fekk ñoom tamit génnewuñu loolu parce que ñoom ñoom ñi ñuy waxal xamal est-ce que xam nga maître El Hadj Diouf kooku moo gën a yeb Sénégalais yi. maître El Hadj Diouf. El Hadj Diouf avocat moo gën a yabaate ci réew mi ak suñu waxee muy ak leelam boobu di mel ni lu may bañ a tudd kooku boo bëggee dégg-dëgg moo gën a yeb sénégalais yi parce que bakkani faatu yëpp ci moom la jógee saay xam nga xam nga jibi loo xam nga non xam nga yow jibi yaa ngi jël ay risque di wax man je ne sais pas xaw ma li nga wax ni foo ko teg du question pour risque xam la mooy risque bi mooy di wax loo xam ne xamuloo ko Adji Sarr barki Dembo Ndiaye bi ñu koy teg fii nii di ko wax loo ay moo écouteurs yi mu takkoon ka moo ko takkal du maître El Hadj non on n'est pas, on n'est pas encore sûr. non on n'est pas encore sûr que ni ay gisee ay écouteurs la takkoon on n'est pas encore sûr. non non xam nga. xaaral xaaral parce que am na image yoo xamante ni chaîne bi ko doon jël di ko teg dafa am image moo xam ne da koo rëccal parce que image du fen lu ñu monté ak lu ñu monté wul xam nañ ko ñun ay journaliste lañ ñun xam nañ bu baax li ñuy wax ñun xam nañ bu baax li ñuy wax tey ji image am na nu muy doxee rek wala am na noo koy seetaane da nga xam ne fii am na lu ñu fi teg am na lu ñu fi teg. mais écouteurs yi Adji Sarr takk yu weex yi bi ñu koy muur di ko teg maître El Hadj am na vidéo boo xamante ne dafa jàll te xam naa ne baawu ci xel te ki ko doon filmé xam na ne carrément lii nii am non xam nga Sénégal tout cas tout cas en tout cas en tout cas Sénégal dañoo yabaate. en tout cas en tout cas on n'est pas encore ay écouteurs la takkoon dañ ko doon dicté on n'est pas encore sûr. airport la takk airport yi weex. bu la neexee mën nga dem fa léegi génnee ko loolu du benn problème. léegi loolu dañ koy bàyyi ak ñi nga xamante nit nii ñoom ñooy ñoom ñooy commenté ñoom ñooy ñoom ñooy euh, les seex jeen toxnog ñuy seetaan léegi ñun si information yi nga xamante nit nii parce que nee naa la léegi euh, Pape Alé Niang li tax yoon jàpp ko wax naa la ko léegi mais on a on a remarqué ni un de ses avocats muy maître Clédor Ly génn na wax mu ne le journal Pape Alé Niang moom mooy wax mu ne le journal Pape Alé Niang est poursuivi par appel à la subversion recel et division de documents administratifs estampillés secret et propagation de fausses nouvelle maanaam comme ni ma la ko waxee woon sànq il a sorti des de des des choses yoo xamante ni nekkul woon moom moo ko war a génne te pourtant loolu noonu yow tu as dit que ni yow ànd nga ci li Pape Alé def. parce que li Pape Alé def loolu moo doon yoon. nga génne information yoo xam ne waru ko génne. mais fii mais kon Sénégal amul yoon kon kon kon Sénégal n'a pas de droit. waaw léegi léegi xam nga xam nga tey jii nii dëgg dafa neex xam nga dëgg dafa neex. mais ma mais ma parce que bu dul woon dëgg man fii ma toog tey du ma fi toog ak yow kon tey doo ma invité may ñëw comme maanaam man lépp lu ma la wax day doon loo xamante ne ay preuve leer la yu wax la Pa Alé Niang li mu def c'est normal mu def ko xam lu tax parce que jël nañ fi journaliste koo xamante ne journaliste la woon léegi député la. loolu loolu loolu c'est du c'est du loolu loolu job la. voilà voilà exemple exemple comme exemple Ahmed Aïdara Ahmed Aïdara Ahmed Aïdara fu nekkoon. journaliste la journaliste la woon et maintenant il est devenu un maire. voilà loolu loolu mais loolu yàlla moo koy dogal loolu gëm-gëm la. moom léegi léegi lan la doon kaas ba tax léegi moom tey mu yegg fii mu yegg tey ji moom Ahmed Aïdara. parce que dafa am gëm-gëm. merci beaucoup merci beaucoup mais ba Alioune Niang li mu doon def tamit gëm-gëm la ci àndal ak gëm boppam. ak dëgg ak kaddu dëgg moo waral mu jël loolu génnee ko. mu jëloon ma laax ma génne lu ko gën a piit léegi wax ji jeex na. non xam nga xam nga Sénégal on a dit que réewum la kon tey jii nii lépp lu nit di def na dëppoo ak dafa war a ak yoon ci yoon no bu ñu waxataanee dëgg rek man je man man man je suis. je suis un am si. man ah. xaaral si dëgg ma la dëgg mënta am fii Sénégal parce que ñi ñu jiite ñoo ñoom ñoo ñu gën a dëng. lu garaaw laa lay wax de. mais imagine toi yow 2012 ba léegi 2012 ba léegi yaa ngi ci deux mille lan deux mille vingt deux wala jëm deux mille vingt trois ci ngay doog a dégg Macky Sall naan ay est ce que xam nga ni wàllum teer yi nii ngay gis nii gars yi di ko xotteeg yooyu noonu loolu yi fi yëbaate la. Eh, pour pour pourtant pourtant pourtant pourtant pourtant ça ça li ngay wax nii mu ngi ñu ñu ngi ci ñu ngi ciy dugg di liggéey. am na am na am na fi njaxiñ Macky mu ngi liggéey parce que boo xoolee tali yi nga xamante ni da nga fa doon jaar des fois muy naxari lool Macky fexe na ba tali yooyu tey ji nii pour nga dem bu gaaw bu la neexee booy dem léegi nga génn jël teer bi da ngay teel a àgg baa ngi nii ak yeneen ak yeneen ak yeneen ak yeneen yoo xamante ni nii Macky il a fait pourquoi yooyu loolu noonu yow doo ko te pourtant bokk na ci développement bokk na ci tey ji li nga xamante ni nii képp koo xam ne engagement moo la ñor wala développement war ngaa saluer acte boobu noonu parce que moom moo ko def du keneen léegi ma laaj teer bi nekk ba fi bi nekkee ak léegi bañ ko commencé liggéey ak léegi ñaata accident nga fi dégg non teer bi amagul accident non mais non non bi amagul accident. xaaral da may déglu teer bi bañ ko commencé ak léegi ñi nga xamante ñoo war a jël teer bi jël ñu teer bi parce que dañoo jël yoonu suuf gi di ci dem accident yi bari dañuy waxtaan wax li nga xamante ni moo fi nekk yaakaar naa jël ay teer jël ay train da ko ci teg di xotti ay tali ah yaakaar naa ne am na lu jiitu lool xamal nga loolu la moo ko jiitu woon. yow imagine toi yow nga jóge fii yow dem ci hôpital yi yow boo feebaree fii léegi léegi léegi yow tey sa directeur. sa directeur télé bi nga nekk nii mu nekk Salam Vision tey jii yow boo feebaree léegi léegi léegi tey yow sa directeur da lay jël te yow tey dem faji la te xaalisam lay jëlee tamit dem faji ji la mais ñaari peuple sénégalais ñoo fi nekk war a feebar ba pare te buñ feebaree ba pare ñu war leen faj fii am na dëkk yoo xamante ne boo feebaree dañ lay faj ba pare après bàyyi la nga dem liggéey loo am di fay par ndànk-ndànk mais senegal léegi ngay gis koo xamante ne da lay leer ni yow bu xëyee mën ta wàccaale journée cinq mille war a jënd ordonnance deux cent mille dañuy waxtaan jënd ordonnance deux cent mille te boo demee ci hôpital bi mu leer ni la yow mi yow ñoom ñoo xam ne mu ñoo lekk ci yow xaalis dañuy lay toogloo fee xaar loola di xaar borom oto rafet ak ku sol jesner ak ku sol ganila parce que xam nañu xaalis lañ mais léegi Sénégal léegi kañ lay dem. xam na point na ne Sénégal santé bi dafay sooke loolu moom ñëpp xam nañ ko loolu moom mbir yi sax dañ koy waxtaanee picc yeeg yëpp dañ koy waxtaanee actualité bi tax tamit ñu waroon a mën a wax xam lu tax yaakaar naa ni defar naa estat fi ñuy mbëkkantee ko dóorante fii ñaata exemple fii yow ñaata match nga fiy gis ñu tabaxal leen estatu ay milliards xeex am fa ñu génn benn rakk de mbose la xam lu muy jar ñaar lay jar saa bu match amee dinañ la may cinq lacrymogènes yoo xam ne dañu la koy dóoral léegi yow foofu ña fay nooyi léegi am na maire yoo xam ne da leen yow am na ko ne barki démb moo xam la moo ko fii ci statut fii nii barki Demba Ndiaye fii nii benn nawetaan fii gars dañoo dóor rakk de mosel maire mënu koo nay ba fan la jaaree faatu léegi yaakaar naa ne jël ay estat jël estat yooyu noonu di ci sotti ay milliards dugaloon ko ci biir lalu bi ku feebar mën a faju defe naa moo gënoon defar ay estat dañuy waxtaan jël lamb fii estatu làmb bii nii arène nationale bi ñaata milliards lañ ko defaree te foofu noonu tamit am na secret bu ndaw boo xam ne leeragul ci bopp askan bi de état bi nee nañ estat bi ñoom ñoo ci fay nangam de milliards mais Sinoa dañ ñu ko may loolu est-ce que leer la askan bi léegi xaalis bi ñu jël déclaré ne carrément léegi loolu lañ jëlee léegi dafa ko état bi léegi million loolu fan la jaar. waaw yow yow information yi ngay wax nii tawit foo ko jëlee yow qui es-tu yow da yow qui es-tu yow qui es parce que dañoo gëstu boo paree ngir defar sa réew parce que ñun ñun ñun jeunes yi ñun ñoo war a defar suñu réew yow yow jàng école boo demee lañ lay jàngal ABCD ngay njëkkee ba fan. fii ñaata fii ñaata ñaata sénégalais ñoo fiy dem université jànge ba pare après da ngay ëlbati quoi toogaat jël sa kaas ataaya teg ak sa banaana li ataaya ndax lan jàng ba am diplôme dem nga université pare nga mais amul dara lu la état bi apporteel loo xamante ni tamit pour mu la ko mën a jox pour mu nekk foo nga war ci liggéey amuloo ko. pourtant étudiants yi ñu ngi ko ay bourses. fii mosoo gis ku fi fay fay ko bourse cent mille de <laughs> dañuy waxtaan. <laughs> mais mais mais mais yow mais yow mais yow mais yow mais man bëggoon naa xam yow tey jii nii yow yow parce que yow xalam nga xalam nga xalam xalam nga Ousmane Sonko xalam nga Macky Sall yow pour yow kan mooy kan kan mooy leader bi gën pour Sénégal parce que yow yaa ngi xalab sànq ba tey ah dégg naa léegi nga tudd fi Karim mais Karim mi nga tudd da nga ko xalab kon pour yow kan lañu war a jox réew mi après quoi en xam naa ni loolu dootul yomb xam tax ba ñu xulee ba Abdoulaye Wade romb ñu la ñu xam ne Sénégal mënatul jàpp kon PDS nga non pas PDS non pas pas PDS. waa léegi ma laaj la benn. ñu ngi koy ñaanal gudd fan. wuy ma Abdoulaye Wade yàlla na defal ci am parce que xam tax mu wax loolu Abdoulaye Wade ba mu toggee ci nguur gi mburu juróom-ñaar dañ la si doon diwal tongo de da doon am mburu te du mat fukki dërëm da am mburu ak tongo léegi mburu bu ndaw léegi lu ma jar léegi fukk ak juróom li bu mburu léegi la lay jar léegi cent vingt cinq waa léegi la léegi lan moo ñëwee léegi coono googu yëpp. non nee naa la loolu noonu du Sénégal kese pays pays c'est partout dans le monde. Guinée bi seen courant doyul de ñun ñoo leen gën a baaxle courant ñoo leen gën a baaxle ay kër ñoo leen gën a baaxle ay yoon ñoo leen gën a neex neexle oto Guinée Bissau xam na lañ def ba boo maanaam vélo vélo bi ngay jël nii di ko pétale da tegaale sa ginnaaw loo xamante bu la léeg-léeg pneu bi wàññeeku na nga pompe ko pour mën a amaat air pour mën a kon ne yegg fi nga jëm xam nga foofu yow si wa maat lu muy jar fukki dërëm doomu maat dañuy waxtaan dañuy waxtaan dañuy waxtaan saako këriñ xam nga ñaata day jar foofu 1200 francs te ba léegi amuñu tali bu baax amuñu kër yu baax amuñu yoon bu baax te amuñu courant bu doy te seen jiitu réew ñoom seen président ci ginnaaw mag Sall yi la topp de. léegi may ma tuuti ma ñëw may ma tuuti ma ñëw léegi yow dëkk yooyu yëpp taxu gën la yombalee dund fii yow ñaata garab lañ fi am fii nii ci àll bi ñaata tool lañ fi am yow li gën a garaaw sax léegi exemple jiyal yi. ñu nekk ci kaso yi fi ñu leen tëj nii dund gi ñu leen fay dundal ñan ñoo koy joxe du état bi dañuy waxtaan rek état bi moom mooy joxe dund gi mais yow ñi ngay jële tëj leen ci benn kaaf tëj leen ci benn kaaf mais génnee leen ñooñu nga xotti àll bi sécurité yi taxaw ñi nga xamante ni ñoom def nañ dëli nga yóbbu leen fa. parce que yaakaar naa ne boo leen jëloon tey yóbbu leen tey ci biir àll yi bayloo leen sénégalais yaakaar naa ni dund dina gën a yomb xoolal Europe da ngay gis koo xamante ne tey dañ koy tëj 10 ans mais 10 ans bi yëpp day am métier ci biir day dem di liggéey ñu koy fay léegi bu 10 ans mi matee buy génn dina amaale benn fond boo xam ne moom ci lay démarré waat maanaam dootul perte laay fam du mën a perte laay fam mais Sénégal fii ngay toog ñu jàppale 10 ans ci lu ñàkk fayda xam nga lan di ko dama ko bett mu violé nangam est-ce que viol am na fa di daa sàcc sama téléphone ma riirandoo la parce que star ngeen ndox daje groupe am nañ nga ne kii kat ci groupe boobu la bokkal boo ko jàppee kat xam nga ka ko sàcc dana feeñ léegi dañuy waxtaan sénégalais jot na pour ñu yeewu tuuti gis nga ay Macky Sall yi Sonko yëpp Macky Sall ak ñu ngi business ñoom ñaar seen business ñoom ñaay ñu ngi déggante ay téléphone ah. mais mais mais nee nga nee nga ku ñëw laaj la ay nga jox ko preuve yi. lakk lakk du ko jeexal. fii la xewee Salam Vision fi la xewee biir Salam Vision. ma ni li ci kanam raw ci bët. li ci kanam rawati bët yéen a ngi fi maa ngi fi deuxième fois bu ngeen moo woowaatee ma tegal leen preuve noonu lay demee saa su ne di leen kontaan di kontaan ci yéen dégg tudd nañ fi léegi Pape Alé Niang muy suñu naataango suñu papa ji nga xamante ni nii defu fi lu ñaaw waxu fi lu ñaaw waaye c'est ça vie peut-être tout le monde fait des erreurs kon ñu ngi koy ñaanal fi nga xam ne moom la nekk yàlla suñu borom génnee ko lu gaaw gaaw parce que ci la nekkoon mu nekk koo xamante ni nii c'est un homme boo xam ne ku nekk gis na liggéeyam ci presse bi kon ñu ngi koy ñaanal jàmm di ko ñaanal fi mu nekk jàmm fekk ko fa ba mu ñëwaat ci ñun parce que aussi tout le monde fait des erreurs kon ñu ngi koy bu baax a baax léegi dernier point bi ñuy waxtaanee ku nekk gis na ni démb Siteu Papa Sow combat bi neexoon na tu vois Siteu am ndam ñu ngi naan ñu ngi ñaan ndam loolu noonu jikko xam nga yeneen ndam topp ci mais ñu remarqué ne combat bi mu jeexee am na yoo xam ne xew na ci yoo xam ne mënoon naa ñàkk muy violence loo xam ne maanaam Sénégal war nañu dépassé foofu parce que dañ ne réew muy dox ci ci jeunesse ba lañ koy xamee te boo waxee état jeunesse jeunesse bi kese ñoo fay daje tu vois kon am na loo xamante ni nii war nañ ko wa am na yoo xam ne ñun war nañ am na ay image yoo xam ne war nañ ko umpale suñu bopp war na war nañ umpale muy daw feneen à à l'extérieur parce Sénégal lañ am lépp loo xam ne dañ fiy dafa war a nekk loo xam ne dafa set ba képp ko gis faañu képp ko gis naaw ñu mais li xew démb moom c'est désolant quoi lan nga ciy wax foofu xam la moo tax du ma ci sori parce que à chaque fois dama koy wax mooy li may wax rek estaat yi ay milliards lañ ko defaree milliards yoo xamante ni saa bu fa dara xewee accident am fa ñu rey ci nit ko yaakaar naa ne loolu baaxul est-ce que xam nga ne Europe football yi ngay gis nii nii nii nii Amérique ak États-Unis Suisse football yooyu ñoo ëpp violence téeméeri junnoon li am fii Sénégal mais est-ce que gis nga benn image ñoom ñu koy jël ñoom presse di ko jël di ko tegal ñeneen ñi du am parce que am lu tax parce que seen couleur dëkk la ñuy jël di ko jaay mais ñun nag ñun dañoo ëppal dof xamuñu lu ñu war a def xam nga mooy bëgg benn affaire mooy lan ok dara xew na fi xaw ma profité wane ko pour am nangam wala nangam de vie affaire du foofu sutura yaa ko njëkk am yow sa jëm bopp sa biir réew tey sama téléphone a ngi nii tegu tey moo xaat leen beneen affaire bu gën a yéeme est-ce que xam ne sama téléphone tey ji dossier yi nga xamante ne am naa ko fii. wax nga dëgg waxatil neel xaaral ma waxati. ma ni man yi ma am fii man sama biir téléphone su ma ko jëloon tey ji image tey su ma ko publier woon. <laughs> nga gis fi borom tur yoo xamante dañuy jaaree ray seen bopp faatu ndax gàcce da leen dal te maa ay dossier fii ñi may ma gën a xam ne ma leen di wax. da ngay la. non pas naa toog ay kilifa ma toog daa am koo xamante ni daf ma daf dane ma mën naa laa fay benn un million nga waxal man nangam ak nangam ak nangam te la muy wax tamit nekkul dëgg pour xamal Sénégal léegi ni muy am na fi kilifa goo xamante ni fii nii nii ci réew mi la nekk li gën a garaaw ba gën a mooy. jànkam moom bi nga xam ne moom la doon jël di ko liggéeyal ci biir kënam moom la dem ëmbal defaat leneen ak leneen lu ci bokkul ba fa jëlaat doomam moom bi mu jur tëddee ko ëmbal ko xam na boppam ki may xam na boppam te bis bu reepee laa la wax bis bu loolu jàllee yéen askanu Sénégal lépp di ngeen tëj seen gémmiñ xam la moo tax ngeen tëj seen gémmiñ parce que am na tur foo ko foo ko fekk xolal da koy jox cër naw ko lool mais genre yu mel noonu ñoo yàq réew mi parce que ñoom ñi war a defar réew mi ñoo yàqaat réew mi wax ji jeex na wasalaam. kontaan nañ ci yow bu baax a baax di la wax la mooy mot de la fin bi ci biir émission bi lan ngay tàggatoo. di leen sant waa Salam Vision di sant seen directeur bu baax parce que yaakaar naa ne invité yombul waaye yaakaar naa ne tamit ngir leeral askan bi taxoon tey ji jotaay bi am bu loolu weesoo na Sénégal am jàmm. Sonko nag na bàyyi liggéey bi muy liggéeyal Macky Sall ci suuf na ko bàyyi man kenn laa gëm te yaakaar naa ni bis bu ñu ko joxoon réew mi bis bu delluwaatoon Sénégal melaat na meloon na gars yi dem seetiwaat Ablaye Wade ndax yaakaar naa ne Sénégal fi ñu toll nii Ablaye Wade rek ko mën a liggéeyaat. salaamaaleykum kontaan nañ ci moom bu baax a baax. ah da bokk ñu bokk ak yow plateau bi def nañ am nañ ci mbégte ak contentement parce que lépp loo xamante ni wax nañ ko fi rek bu juumee bu dee am loo xamante ni dëng na ci ñun la waaye bu fekkee dafa am loo xamante ni tamit rafet na ca yàlla la parce que yàlla xool li koy neex mu koy def ñu ngi jégalu ñëpp ñu lay demee saa su ne nee la Salam Vision jàmm ju gis-gis dañu woote kon képp koo xam ne am na loo war a wax commenter foofu noonu boo bëggee tamit kii fi fi mu toog nii mën nga fi ñëw toog mën nañ invité nga wax sa xalaat ci société bi parce que kàddu askan wi dañuy wax képp koo xam ne jeune nga wala képp koo xam ne yaay booy nga lépp loo mën a doon am nga fi place ñëwal toog ñu waxtaan parce que li mu wax dégg nañ ko képp koo xam ne am nga am nga ay révélation yeneen mën nga commenter comme ça ñu àndandoo dundandoo mais na Sénégal am jàmm nañ nekk si jàmm ngir yàlla nañ bàyyi violence yi parce que violence amul sens lamb ji li ciy ëpp ñun jeunesse yi la parce que nee naa la réew muy dox ci jeunesse bi lañ koy xamee kon jot na ñun jeunesse bi ñu def face ak suñuy problème ba tey jii ni lépp loo xamante ni luy ñaawal réew mi la ñu jël ko sànni fële parce que Sénégal la ñu am Sénégal la ñu am kon merci à vous kontaan ci yéen ñi lay demee saa suñu ne avec DJ bi xale bi yaayam yaakaar l'homme ci n'a pas peur de voir ba beneen yoon